waaw euh, conférence bi conférence bu mag la te conférence la boo xamante ne état du Sénégal jox na ko solo solo bu rëy euh, ndaxte conférence boobu dafa ñëw ci contexte boo xamante ne euh, jóge nañ ci Covid 19 Covid 19 amoon impact yu rëy yoo xamante ne freiné na croissance su secteur bi. waaye ak acteurs yëpp muy Air Sénégal muy AIBDSA muy LAS ñoom ñëpp góorgóorlu nañ ba fu mu toll nii euh, chiffres yi ñu amoon avant Covid 19 bi amaat nañ ko léegi nii te chaque année ñu ngi am passance boo xamante ne toll na ci 7 ba 8 pour cent. comme li ngeen ko xamee euh, Sénégal day recevoir seetlu nañ ko depuis quelques années de plus en plus ay conférences internationales. loolu nag li ko waral euh, bokk na ci résultat yi nga xamante ne plan Sénégal émergent am na ko. parce que ci plan Sénégal émergent am na lu ñu woowee le hub multiservice mooy def euh, Sénégal mu nekk ëpp boo xamante ne ci Afrique ci wàllum service euh, daf ci am solo te d'ailleurs ci ëpp hub service boobu nga xam ne projet plan Sénégal émergent la si la ëpp aérien bi bokk donc jéego yooyu ñu am ci plan Sénégal émergent moo tax euh, léegi association internationale yu bëri dañuy bëgg ñëw Sénégal ndaxte tamit ab defar nañ fa ay infrastructure yoo xamante ne mën na accueillir euh, façon conférence yu mel noonu